bu fekkee réew mi ñoom la yor te lu ñu bay xaaj bi dafay yàqu lenn li dañ koy dundee donc li ñu jëriñ réew mi bëriwut ay ay paysans lañ duñ ay cultivateurs wala ay producteurs en tant que tel. après nga am problème foncier ñu bëri am nañ ay tool mais seen foncier bu ñu demoon banque c'est pas valable réew mi ñu fi ëpp ay suuf bayuñu mu lu loo xam ñu bayuñu maanaam ñu dañoo tëdd ci suuf si di spéculer waaw donc. donc problème foncier bi ensuite nga dem ci troisième problème bi. mooy mooy da nga koy boole. mooy formation ak équipe mooy logistique bi maanaam mbay mu moderne loolu lépp dafa ànd ak formation ak logistique financier gis nga ñett yooyu buñ ko allié. danañ mën a am li ñu bëgg en suffisance alimentaire ba hmm. pare dara bu fekkee ñun ñëpp wax nañ ko ci table ji hmm. bu fekkee tu ne pas un producteur marché mondial bi dafay imposer ay prix boo demee indi fi ceeb gis nga indien bi indi ceeb bi hmm. bu accès ba ci port bi lenn rek nga mën a wala boog importateur bi lenn rek nga ko mën a wax waaw saawaay bu nee la sama kilo ceeb bi dix mille laa koy jaay mënuloo ko dara parce que moom dafa fay transport dafa jënd ceeb bi dafa yóbbaale xaalis ak frais de voyage am yooyu yëpp da koy calculer teg prix bu bu ko saf yow lenn rek nga mën a agir. Hmm. mooy sëriñ bi comme kuy dugg ci réew mi da ngay cotiser pour ñu def ko ci gas gafak ak réew mi pour mën cee defari taleeg yooyu loolu la wax taxe moom lay réew di dundee ak ay ressources am yi mu am waaw ah, xaaral léegi kon ma dindi ko. yow nga bañ koy yokk ci njëg gi parce que bokk ci tegalee da koy yokk ci njëg gi donc état foofu rek la am pouvoir moo tax loo looy produiral sa bopp lu mel ni xorom xorom koo mës a dégg mu ni dafa cher moi je pays yoo xam ni xorom moo gën a cher ceeb parce que dañ ko produire amuñu ko c'est tout donc c'est essentiel état bi jël tous les moyens qu'il faut ba suñu besoin primaire boobu di lekk ak naan ñu résoudre am kilo mango a deux te ñun fii dañ koy watat di ko sànni. ok Ziguinchor gi wax moom li mu wax rek loolu si. moo am na am na ku la nee na li nga ko. Ah, li nee na li nga fi li nga fi argumenté dafa neex ba tax moom Cheikh Diaw je t'offre un week-end en pension. complète ici à Saly. <laughs> kooku moom Cheikh boo pare. <laughs> Ah, waaw <laughs> soo paree faa nga dem seeti Cheikh Tidiane Wade bi moo wax loolu. alors eh, Imaam eh, Cheikh def ñu defal benn transition la transition est bien faite par rapport ak li di exploitation wu pétrole Sénégal pétrole ball na fi. Euh, ñu bëri nag souvent dañuy wax même bu fekkee àndu man moom ànduma ci mooy le fait ñu ne fu pétrole ne ball rek malédiction day ñëw euh, donc déjà ball gi Sénégal pétrole bi ñu gis ko di ko exploité donc ban jàngat nga ci def imam waaw balaa ñëw ci point xam nga Cheikh dafay wax loo xam Euh, maanaam dafa neex ñun ñëpp suñu sañoon bàyyi ko li ñu dese ci wax jox ko ko baax non wax yéen ñëpp a pertinent macha allah parce que euh, li Balla musa doon wax euh, xam-xam du pexe gis nga man damay naan li may gërëmee président Ousmane Sonko dafa bari mais da cee bokk dafa tax Sénégalais yi découvrir ay boroomi xam-xam tey xam nga ñii tey nekk ay ndaw dégg nga fànn gi ñu jàng bu ñu ël bu ñu àddoo rek yow da ngay da ngay moo tax tey réew mi ñu ngi am yaakaar ne euh, maanaam dàgg santé bu amul njëriñ dinañ ci jógi parce que tey xale yi xam-xam la ñuy wax tey euh, maa ngi koy wax xale bi bi ma dajeeg moom Bordeaux mooy euh, ki ñu ki ñu fal yi ci affaire énergie bi mooy booy bi lu ndaw li déedéet leneen li. ah ki ñu jox affaire. waaw waaw waaw waaw. Euh, xam nga ko yow. affaire lañu waaw mais. Hmm? waaw wala Petrosen. non affaire affaire. Hmm. xale boobu dama daje moom. Jean euh, Michel oui hmm. Jean Michel Sène. waaw dañu moom moo moom moo dëkk kii. Euh, ay kii dëkk kii looy dëkk. donc léegi li ma li ma a wax sax li ma bëgg mooy. Pastef ñu indi ay boroomi xam-xam yoo xam ne tey danga naan ñi fan lañ nekkoon ci àddina bi nekk ay xale ñooñu ñooy defar réew mi ah, moo tax opposition bii ni bii nii il faut ñu génnee seeni woromi xam-xam débat yi leen Ousmane di woon ne nañu def opposition ci wàllu xam-xam. wax nga xam-xam ah? de ah waaw waroon pluriel la. waaw foofu moom wax na waaw non damay jàng wolof ah, mooy waaw mooy pluriel waaw waroon léegi li ma. Eh, waaw ñu bind de. waroon waaw waaw cest dire que tey affaire bi borom xam-xam yi nga xam ne tax nañu découvrir leen ñëw. Ah. indi seen xam-xam ñoom ñooy tabax réew mi ci kattanu yàlla. donc sa euh, sa développement bi dafa ma daf ma yëngal daal daf ma neex. Mm-hmm. moo tax li nit ñëpp di wax mooy. il faut nga jël beneen euh, émission boo xam ne. Mm. da ngay développé moom bu fekkante ne. Euh, yaa ngi nekk après bu bu ñoom saa seeñoo ba noppi. après il ñoom saa. pour de maa moom ñooy digérer affaire yi fii ensemble. <laughs> waaw léegi euh, xam nga ci wàllu pétrole bi. ñun dañ ciy sant yàlla. bi ñu ko commencé ngaj ci mu tombeek loxoy président Diomaye ak président Ousmane Sonko. Mm-hmm. ndax gis nga petrole pour réew jëriñoo ko. njiitu réew mu faaw mu bëgg réew mi. nga xam ne dafay bëgg réewam. du mm. bëgg boppam. Mm. gis nga Dubaï. Cheikh Zayed bi pétrole bi di génn Dubaï. Dubaï pétrole moo ko développé. mais góor gi dafa bëgg réewam. Mm. fekk boobu Dubaï ay ay imaaraat la woon. yu tàqalikoo ay chariqa fii ay Dubaï fii mu boole leen ñoom ñëpp. pétrole bi. mu jël ko lépp mu defar réew ma fexe ba waa réew ma jëriñoo pétrole bi donc bëgg sa réew mooy tax nga mën a jëriñoo mbell yi nga xam ne day nekk si sa biir réew euh, Qatar petrol ak or ñoo ko développé ñaar yooyu rek lañu am Dubaï pétrole moo ko développé Qatar euh, euh, pétrole ak or tey xoolal te dëkk bi ëpp koom-koom ci àddina bi individu bi ëpp koom-koom mooy waa Qatar mooy Qatar te dara joxu leen ko lu dul réew mi daa nekk peuple bu tuuti pétrole bi bari or bi bari ñu jëriñoo ko niñ ko war a jëriñoo léegi man maa ngi dégg ñu ne Sénégal lu mat plus de trente mbell mu ngi ci biir réew mi mbell wa euh, mbell ah mbinaare waaw maanaam diggante or pétrole zircon phosphore yooyu boo ko compté ba ci ba ci ba ci jamaa te mu ngi ci suufu Sénégal ci peuple boo xam ne matuñu ñaar fukki million waaw léegi population bi rek Istanbul moo leen ëpp waaw boo demee Turc Istanbul kepp moo ëpp population sénégalaise bi waaw Istanbul mooy capitale ba waaw mooy capital bi donc waaw mooy capital bi léegi yow réew mu tuutee nii Sénégal ci ay nit foo làmb rek mbel la ay or la ay pétrole la moo tax damay wax di ko wax di ko waxaat sénégalais bu pauvre amut hmm. li nga xam ne nekk na ci réew mi yeggagul ci sénégalais bi mais lii yëpp bu génnee hmm. man damay wax ni bu lii bu génnee incha allah di si quelque temps sénégalais bu nekk at mu jot di nga génnee assaka ah waaw parce que li ngay denc at mi dina ëpp deux millions te deux millions bu ko ëppee day mën a génne asaka cest à boo mënee génne asaka pauvre dootul am ci réew mi donc mën dañuy sant yàlla pétrole bi na mu ñëw ci jamono joo xam ne ñun wér nañu wér yàlla ne président Diomaye dina ko delloo ci réew mi wér nañu wér yàlla ne euh, si euh, euh, contrat yi ñu defoon baaxul nga xam ne day lor réew mi yooyu yëpp dañ koy xoolaat. kon daal ñu ngi ci sant yàlla. Euh, foofu mooy mooy mooy fi ñuy tàbbi sax imaam xalifa Ababacar ndaxte moo jur coow li. <laughs> ah loolu askan wi ku nekk ak ni nga ko xalaatee. Hmm. mooy le fait Sénégal ñu ne ci contrat yi 18 pour cent xëy na la ci amoon euh, ñu diggee woon itam ci bi ñuy def campagne ne dañuy sopp wala soppar ni wala xoolaat anam gi ñu signé woon yenn ci contrat yi mooy renégocier ko euh, naka nga jàppee ne loolu war naa mën a nekk loo xam que évident la tey bu ñu audité bu ñu ko audité rek dañuy mën a trouver solution boo xamante ne daf ñuy yóbbu ci ne est-ce que li ñu signé li ñu signé woon est-ce que lu jaar yoon la wala lu jaarul yoon su boobaa bu jaaree yoon eh, fan la alhamdulilah ñu xam ne suñu sens la bu jaarul yoon dañuy casser signature bi eh, dem négocier waat ah, pour ñu xool nu ñuy doxale mais. mais man pétrole li ma ci xam bëriwul parce que xaw ma ci lu dul sol ci làmp ci jamono <laughs> jamonoy daara ji <laughs> imam d'accord sol ci làmp daal yuqi làmp bi dal di kosame daal di mais xam naa ni daal lu développé Qatar comme ni mu koy waxee Dubaï gi ma jaar développé ko te yaakaar naa li ñu am fii moo ëpp la nekk foofu